dama dégg ci ay wax am ñu naan non un président ne gère pas des détails bi mu defee descente mbuurkat ñooñu dañoo xamul président bu gérewul détail daanu xamul tax on te présente des rapports biaisés Abdou Diouf dem na ba wàcc soo ko xam ne takku juróom lay jar. am na waaw boobu boobu suñu grand ñi nga xam ne ñooy Ibrahima peut-être ñooy suñu génération aînée ñoom ñi jamono jooju peut-être fekke woon nañ ko ñun sax am na luñ ci fekke voilà mi ngi noonu donc tey jii le président Macky Sall man dama bokkoon ci ñu nu bind lettre ñu ngeen ñu teew sur le conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes. ñu defoon ko dem ñaajo yéen a ngi fàttaliku bi ñu indilee papier le président Macky Sall ne ko xaalis bi nga xam ne moo waroon jëm ci Jakarta maa yegg na ci gouvernance yi est-ce que vous vous Birahim ba gouverneur bi ci boppam à travers le gouverneur de Louga je pense moom moo ñëw ba ci moom maa ngi toog ci salle bi ñëw wax ak moom ne ko xaalis boobu yeggul. le président ne abo ah nga xam ne c'était juste entre guillemets une humiliation bu ñu def un président ah. pour avoir pour lui avoir donné une information biaisée une information fausse donc ñun démarche bi ñu indi par rapport à la rupture mooy ñu wàcc sur le terrain maintenant bu ñu wàccee sur le terrain on fera ce qu'on appelle les états des lieux état des lieux mooy lan mooy dañuy xool bu ñu xoolee dégg naa ci ñoo xam ne aussi ci xoolin bi dañ ne waruñu woon taxawal li nga xam ne mooy les chantiers le président Bassirou Diomaye Faye je répète ses propos dafa ne li tax cause bi tax mu ne nañu arrêté taxawal li nga xam ne mooy travaux yi ak li nga xam ne mooy euh, attribution domaine de domaniale li dafa ne am na ci ñoo xam ne ñu ngi empressé wu ce sont ses propos pour dem régulariser des titres de domaine de domaine yoo xam ne di leen mën a permettre mm. bu état ñëwee croiser les bras ci mën dara mm. moo tax mu taxawal yi fi Ahmadou am na ñoo xam ne ñu ngi construire ci lieu yooyu mais yor nañ seen ay ay këyit yoo xam ne yuy firndeel que ni seen terrain la est-ce que ñooñu nekk ñi nga xam ne peut-être décision bi dina leen impacté ñoom. non non dafa ni. Mhm. nañu tegani tegani mooy tey jii olof lay wax koo dekk balaa ngaa lakkale. maanaam doo bàyyi bi jëyee am nga xam ne lii mi ngi mel ne sapeur pompier sapeur bu gisee fuy tàkk du bàyyi ba ne naa lépp ma soog a intervenir. moom fa fa fa fa bi tàmbalee fa la jëm. am na objectif bu ko arrêté ba pare hémorragie bi da koy arrêté. donc le président Diomaye fay loolu la ñëw loolu nag xam nga lu mu ci jubloo wone amul sénégalais bu am maqaama yow benn nit lu ay junni nit war a bokk nga ne ko tungaañ yow kase yaag sa njaboot mu leer na ne yow mënoo ko dëkk dëkkee woo ko Thiès ña fa am terrain wax dëgg yàlla yeewawuñu cees te waa Thiès ci gën a yey donc quand tu es un président tu es le premier avocat du peuple loolu moo tax mu descendre sur le terrain ba pare jël ci ay mesures mesures yooyu mu ci jël nag ça ne traduit euh, door doom la làq doom wala ça ne traduit dafay ñëw ngir fayantoo ñun jëluñu nguur ngir fayantoo dañoo jël ngir liggéey kii mi ngi koy wax sànq Birahim par rapport ak euh, notre doyen Cissé Lo ci li nga xam ne donc on sollicite tout le monde ngir que nit ñi xam ne ñun on fait une gestion participative une gestion collective boo xam dina mën a permettre li nga xam ne moom lañu bëgga def mooy lan mooy ñu fexe ba Sénégal gii am rupture rupture du am te souveraineté amul souveraineté du am te réforme amul réforme du am te changement amul changement boobu nag ñun moom la ñu indi xëy na nit nag loo tàmmul gis boo ko gisee mën ngaa am nu mu nu mu def ci yow li naan nit li tax mu jommi ci jinne mooy de koo mës a gis mosoo gis ko jommi ñaari yoon parce que démarche bi nit ñi mësuñu ko gis moo tax actuellement ils vont tout faire euh, les personnes vont tout fair pour voilà jéem a kii mais ñun on reste droit dans nos xam nañ fi ñu jëm te on l'aval on a l'aide on a l'appui et le soutien du peuple sénégalais. d'accord avant ñu revenir ak Ahmadou par rapport ak dernier point bi mu jëm ci wàllu migration bay